suñu bos dafa fermé. ah oui mooy ñun jàpp nañ ne. Mm. président Macky Sall 2024 mooy suñu candidat. Mm. comme vous dites que c'est c'est un cercle qui n'est pas fermé le cercle de Idrissa Seck est-ce que c'est pas l'occasion comme le chef de l'État aussi kàddoom jiitu na ko mu sortir avec les honneurs la grande porte comme ni nga ko ko souligné mu nekk yéen seen candidat seen coalition Benno Bokk Yaakaar. Euh, président de la République moom bëgg-bëggam la am chaque jour ñu ñii su sunu kër yi ci sa nga am sa bëgg-bëgg sa njaboot nelaw ñun lii mooy suñu bëgg-bëgg nga xool intérêt wu sa njaboot intérêt wu dëkk bi nga nekk intérêt wu nangam nangam ba tax nga bàyyi sa bëgg-bëgg pour fekki sa njaboot si seen bëgg-bëgg. mais kàddoom ko jiitu monsieur le maire kàddu kàddu loolu laa lay expliqué rek. kàddu boo amee sa bëgg-bëgg mooy am nga si wax nga ko boo ko exprimer loolu sa bëgg-bëgg la président Macky sal Euh, démb Idriss Seck wax na ko nee na bu muy def limitation mandat yi ci constitution bi lu mu gëm la te ba tey jii lu mu gëm la limitation mandat mais dafa am moom lu ko lu ko tënk loo xam ne ni moo ko ëpp doole. muy muy la constitution. te moom bu fekkoon moom mooy dogal moom mooy wax candidat yi kon moom du préparer ay ay ay ay ay parrainage parrainage yi paase ñun dañu si sonnoon bi ñu yóbbu ñun suñuy parenage si ndem si yàlla si Ousmane Tanor Dieng valise lañ yóbbu. fu nekk lañ dugg. Mhm. bu fekkoon président Macky Sall kàddoom rek doy na kon lu muy doyee parrainage kon lu muy doyee jël dossier defar lépp ba mu baax def si ay papier mag ay casier judiciaire ay yëpp di koy yóbbu conseil constitutionnel ça veut dire que au delà de moom dafa am baat beneen fi ñuy décider si wàll woowu foo xam ne dafa ëpp maanaam kàddoom. foofu mooy conseil constitutionnel. Mhm. ñun nag liñ koy ñaan ñun tamit ay ay ñun waa Sénégal da dañoo am am nañ nit ku nekk moom moo sa cent pour cent. d' accord yaa ngi dégg ñun fii bi ñu defee suñu rassemblement bi à Mbour dañ ne ko président Macky Sall ñun bëgg nañ nga am un deuxième quinquennat.